الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه الهداة الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بقي تديني دقلو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نكران دفيقين semaine bu nekk delsi nañ pour waxtaan ak yéen ci lislaam ak jamono war a waxtaanee li ñu tàmbali woon mooy lislaam ak tariqa nañ ko waxewoon itam yépp ñu jublu ci rek bennoog jullit yi du ñàkk ku laaj ne lu tax ñu yàgg ci lislaam ak tariqa amagum nañ ci ñetti émission ba di ko ñu ci ci tey ci biir loolu nag suñu tontu ma nga nekk ci tontoob yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu gàddoo etam wa yàlla di ko laaj lan moo nekk ci sa loxo mu ne ko et la woo xam ne dama ci sukkandiku di ci dàq sama jur e am naa ci yeneen i soxla boroom xam-xam yi ni doyoon na rekk mu ne sama et la ndax lu nekk ci sa loxo lañ ko wax waaye ñu ne place bi palaasu leeral la al mahallu mahallu bayanin fa jaaza fihi l iqnaab palaasu leeral la kon taxaw fa tuuti ngir dara dootul lëndëm dafay laaj daf koy laaj kon ñun itam dañoo yegg si ci bunt boo xam ne palaasu leeral la ndax tariqa da fee yàgg weddi ko yàgg fi tariqa tariqa tariqa sax fi weddi ko munu fee taxaw kon suñ yegsee ba war koo waxtaani war naa nekk waxtaan wu yaatu ñi koy weddi ne xam-xam ci lañu sukkandiku ñàkk xam-xam a tax mu tasaaroo fi ñu mun leen a woo leen indi leen xam-xam boobu nit ñi dégg ko su ko defee waxtaanu guddi googu jeex koy kañe jeex làmp yi tàkk ñépp wax yi fi leer kon susi boobu moo ñu indi ci ñu war a yàgg ci palaasu leeral invité nag ay nit yoo xam ne ku nekk ci ñoom ràññeeku nga ci xam-xam e ni ngeen ko xamee suñu làkk miinuñ cee waxtaanee xam-xam waxtaan woo xam ne ku nekk day indi xalaatam moo tax du ñàkk ñu bari ñàkk miineel googu dana leen dana nekk gan ci ñoom miinuñ ci itam ci suñu làkk ci lislaam di ci waxtaan waxtaan woo xam ne ñii dañ koy gisee nii ñii dañ koy gisee nële loola itam ci réew mi rekk la waaye nag du ca xam-xam ba lislaam moom xam-xamam naka jekk xawlaani la kon toujours ay gëstoo ca daan nekk moo tax xawaayidu istinbaat jóg ay règle yuy réglementé xam-xam boobu jóg kon lu ci am ci bunt boobu rekk ñu xam ne ku indi lu bees di ko miinal nit ñi loola du ñàkk léeg-léeg mu ànd ak beesaayam waaye nag ki nga xam ne mi ngi liggéey war naa nangu ñaq wu ko ca fekk ak pënd bu ko ca fekk mu ànd ak moom beneen point bi nga xam ne jar naa leeral mooy tey dañoo invité bindkat boo xam ne tëbul bind waaye dafa tëb di tontu kon lutax invité wuñ ki bind dafay daal di poser wu comme question ndax daño invité Cheikh Tidiane gay bi nga xam dafa bind ab téré bo xam daf ci tonto kitaabu taqdis mom nak mu ne ak taqdis bobu dal kitaabu taqdis bi wax ne dañoo màggal nitu yalla yi lu yalla len téré bobu da fay jaxase ma bayna talbiis wa tadnis wa tadliis day yàq der day jaxase li wax yépp xam-xam taxaw ja loola mooy gis-gisam su ko defee nag dana am ko laaj lu tax ki ko bind woowu leen ko te mu ngi fi hakay jokkuwante na ñoog mbokk mi Mouhamed Ahmed Lo mi nga xam ne moo bind teesu magistram ci Arabie Saoudite bind téere boobu ñu nangul ko ko fofa ne ko rafet na gantalu ñu waye nak neena muna gula wax waaw munagula wax déet gannaaw nak waxtaan wi dafa taxaw e ñu deglo gum kuy wax déet waxtu bu bëgge wax mom waaw ni ni la itam buntu baa ubbe ko ci kanam e nonu itam amna leg leg ñuy laaj ne lutax tax leen ñeneen amna ku nekk rek dégg naa la sa débat ak xaadim xaadim itam maa ngi fàttali ne docteur xaadim Mbacke invité nañ ko fi ndax ci ñu wax ci débat boobu mu waxoon bi mu ko waxee ne sëñ Touba nee na gis na yonent bi mu ne amul kon ñu mel noonu woo naa leen pour ñu indi seen gis-gis ndax nit ñi mun cee leerlu kon débat itam dama ko ubbil ñëpp am na nag ñu ñemee waxtaan ca liñ bind am na nag ñu doyloo bindi yem ca ñun nag dañoo ubbi pour waxtaan taragaluñu suñu xalaat kon ci gàttal euh, loolu mooy leeral yim laajoon ci début bi ñu ñëw nag tey ci commencement bi di dalal jàmm Cheikh Tidiane gay ne la ahlan wa sahlan bik ci Walfajri di la laaj nag ci ñooñu weddi tariqa et nga xam ne yow da nga gis ne ñoom dañoo am tariqa waaye dañ koo waxul nga gis ci sa téere ne dañoo am sëriñ bu ñu gëm lool ba yàllaal ko jikko ji ñuy joxe ñoom ñoo ko amee waaye duñ koy tudd ma bëggoon kon nga ñëwal ñu ci loolu bu fekkee itam da nga bëgg a def sa benn présentation ci bennooy jullit yi benn introduction mën nga koo def yegg si nag ci suñu laaj boobu nga xam ne moom lañ laaj kon kaddu gi yaa ko amee Cheikh Tidiane ngay ñu ngi lay tatagal di fàttali ni inspecteur de l'enseignement nga arab ca Louga kat nga buy bind bu bind téere bu mag buy door a pare adib nga ku ñu xàmmee ci xam-xamu adab al arab yi di poète boo xam ne da ngay bind ay poème ci olof ak ci arab di itam nit koo xam ne nitu tariqa nga li ngay wax da nga koo gëm waaye itam da nga koo xam ndax da nga koo gëstu kon ñu ngi lay tatagal di la jox kàddu gi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 Eh, Sidi maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi ñuy déglu yépp eh, bala ma dugg ci loolu nga laaj dama lay gërëm ci na xam sax woote bi ma woo ma ñëw fii waaye di la gërëm ci ubbi bi nga ubbi buntu nit ñi mën a tase pour wax man d'accord naa yow totalement ci kaw ni nit ñi bu ñu am ay xalaat fekk ni mënuñu ko woon a wax amuñu woon nu ñu jokkaloog nit ñi suñu demee ba am ko dañoo war a am courage bu toll ne ñëw génnee ko li nga wax sax leeralal na ma tuuti parce que man damaa jàppoon ni waxtaan wi ni mu gën a jaadoo moo doon ni ki bindoon téere bi may tontu moo waroon a jëkk ñëw wax su ko defee man ma ñëw wax ci téere boobu bon damay dem sax lu gën a sori loolu man li may souhaité mooy ñu def benn face à face cest à ñu bokk ci tasi waaw euh, kooku am naa ci tuut mais daal bu ñu fi bokkoon tase ak ñeneen ñoo xam ni gëm nañ li ñu bind li mu bind moom te ànd nañ ci moom te ñooñu jàpp naa ne am nañ fi ak ñenn ñoo xam ni xëy na gëm nañ li ma bind te am nañ fi ak yow mii nag ak yeneen journaliste sax ñu ñëw ñu def benn face à face parce que am na ci loo xam ni ci moom li mu bind man duma ko ko waxal cest à diir ay yóbbante saagale ci ay nit ñu baax loolu duma ko wax man mm-hmm. c'est-à-dire parce limay wax man ci limu limu li mu bind moom li nga xamni wax ju baxul la dama ci wax limu la ñak rek pour leral wax moy limu wax waye lam wax lépp mom duma ko ko waxal. ko fas ma ko yéene def. benen bi ci dess moo di ni yóbbante xuloo yóbbante xuloo ragal bay def. c'est-à-dire surtout bu fekke ni dañu nek ay julit jàng li ñuy wax. nu gëm ko nga xam ni lii dangaa jàpp ni dëgg la sa borom dala koy laaj ëllëg loolu la nga cay wax war ngaa ñemee toog ak keneen ku lu ci loolu comme que yaa nekk ci dëgg nga leeralal ko loolu parce que il faut nit ñi nag tàmm di discuter di weddente waaw bu ba ñu weddente ci la dëgg di feeñ moo tax yow fii ci Walfajri ak yeneen rajo yi bon institut islamique euh, université Dakar Saint-Louis ñoo ñëpp man maa ngi doon te loolu yóbbante naa ko ko ku ma yaakaar ne wax na ko ko ni ko ñu fexe ba def débat public débat contradictoire euh, contradictoire publiquement ñu teew fa parce que Sidi am na benn affaire boo xam ni man dama ko bëgg rek hmm. parce que damaa gis ni waa ji ci téere bi hmm. wax na ci wax yoo xam ni hmm. yu ñàkk a jaadu waaye wëlbati na ci waxi jàmbur c'est-à-dire falsifier waxi jàmbur waaw euh, Cheikh Tidiane dama lay téye parce que boo tàmbalee indi point boobu te teeg segguma ci da may jiitu da ngay jiitu ñi ñuy déglu. Ah, kon waaw donc bëgg nga del si. waaw kon kon ci tariqa boobu nga xam ne moom moo taxaw. waaw balaa boobu. waaw balaa boobu. Hmm. damay wax ni waxtaanu jullit yi kii maanaam benn ak jullit yi. Hmm. kooku ñun ñëpp ñoo ciy wax. Hmm. waaye man sama xalaat bopp. moo di ni. Eh, est-ce que est wax googu ñu ciy wax. xam nga lu ko def mooy ñun ñuy wax naan jullit dinañu booloo il faut ñu nekk nit ñoo xam ni kenn ku nekk dafa jàpp ni sa moroom jullit la ñu soog a mën a booloo mais su fekkee ni ñuy wax dafa am ñenn ñoo xam ne dañoo jàpp ni seen morom du ñu jullit ñooñu boobaa benn du fi am te xam nga société islamique soo demee ci commencement suratul baqara ni mu ko seddalee ñetti kese la allazina yuminuuna bil ghaybi wa yuqimuuna salaat c'est-à-dire jullit yi ñoo fi amoon ak إيه، إن الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ويفري ومن الناس من يقول آمنا بالله وهم وما هم بمؤمنين سادر منافقي نافق نك أمر تلتي السوسيات بون وخينا من كي أم من يوم خامون يكو بس كي ينتبه صلى الله عليه وسلم بين فيديو جي حزاي فرق لك خامون كون غناء موريني مونيو أتني ديو نافق ولا ديو نافق كون سوسيات بلي مي سيدلي مو يفر أجلت bon su fekkee ne nag ñun ñi nga xam ne ñooy woote ni julli lañ. ci sunu biir Abdullah ibn bay lañ ca waxoon ci Madinatu Munawwar waaye dama bëgg. léegi gën maa ngi ñëw. waaw maa ngi ñëw léegi nag. Hmm. Eh, li indi loolu bu fekkee ni fekk loolu problème boobu réglé wul. Hmm. problème mu benn jullit yi dana xaw a jafe tuuti. leer na point point boobu leer na. léegi léegi mu des. waaw eh, téere bi nga xam ni. Hmm. Eh, mbokk moom nga tudd léegi moo ko moo ko taalif. kër supposé bi ñu ci defoon am na benn euh, wahabi bu mag. Mm-hmm. bu ni lu tax ma ni waa ji wahabi la. Mm-hmm. est-ce que waa ji moo ko wax wala moo bind ni wahabi la. Mm-hmm. walla dama sukkandiku ci rek ay xalaat yu mu niroog euh, Mouhamadul Abdul Wahab moo tax ma bind ci loolu tegewul fenn non euh, Sidi. nit ki wax fi mu bokk. koku duñu xaar ba ñu bind ko ci kàddantem wala ñu bindal ko benn kii mu taf ko ci jëm buy dox ñu xam ne kii wahabi la wala tijaan la. ku wax feeñ. wala taax taarifannahum fii laxnil qawli alquran la. ku wax feeñ ku wax feeñ. ku wax feeñ. ku bind feeñ te kalam tu araf léegi loolu yéem na ma ci ñoom beneen bi ci des mooy. ñoom dañuy wedd ni ñu ay bon sooy waxee ñu ni ñoom ay sunni yu lañ ay kooku daañu ci ñëw ci kanam ay sunni yu lañ ay salaf yu lañ. <laughs> mais kooku benn euh, benn benn. loolu loolu mooy li wolof di wax ku ràcc teg ci. sa kanam benn benn benn mbalaan la muy sàngoo rek. boo boo ko ëffee sax mu naaw. Hmm. parce que euh, li ngay wax bëgguma laa jiitu. Hmm. xam nga su nit ne moom du ma waxaabi. Hmm. mais soo tuddee bi mu mer saaga la. xam ko day feeñal bopam te borom téere bi def na ko ci biir daañu ci yex insha allah. legi ñom nak lan moy wahabiyya wahabiyya ben ngir la mo xamni ab tariqa la. te gu tudde ko tariqa rek parce que tariqa. xam nga soo gisee ci alquran moy yoon rek. waaw moy yoon rek li kullin jaalna li kullin minkum jaalna shir'atan wa minhajan. waaw bu ñu amee sharia pare dafa am aw doxalin ci biir. c'est-à-dire ni ngay doxale moy nan kesse legi Mouhamadou ibn Abdul wahhab dafa am aw doxalinu bopam bu mu amone wowo ay nit gëm ko top ci. mais pourquoi ñoom duñu ni Mouhamadou Mouhamadou Abdoul Wahab gëm ci li mu toppoon rek mu nekk benn tarixa bu bees. Hmm. mun affaire bi simple. Mouhamadou Abdoul Wahab moomu nag. mi ngi judd 1703. dégg nga man génn àdduna 1792. ci benn dëkk bu ñuy wax Oyeyniya. Hmm. E daawoon na jaabante diggante Makka ak Madina ak Basra ak Cham. Euh, mais li mu ràññeeku loon woon. moo doon weddi boroom xam-xam yeeg ni yàlla yi kooku daf ko daanaka daf ko judduwaale. maanaam daal wuuteeg nit ñi pour mën a. siiw jëkkoon lool daañu ci ñëw ci kër waaw. léegi bu mujj yàgg mu fi papaam nekkoon mooy xoray mi la. Hmm. mu dem dëkk ak foofu papaam waaye mook papaam sax mënuñu woon a juboo jubóowulante mook ak frère bi xam nga ni euh, as-sawaa'iqul euh, sawaa'iqul ilaahiya hmm. magam hmm. Souleymane ibn Abdul Wahab moo ko bind dégg maam pour weddi ko. bi papa ji gaañoo nag 1740. Hmm. ci la génne nag xalaatam boobu mu amee nga xam ne xalaat bi lu ko jëmmal. mooy ku wuuteeg moom ci xalaat ci jullit yi mu def la yéefar. Hmm. maanaam le terrorisme religieux. Ah. li ñuy wax la terrorisme intellectuel am na am na jàngkat yoo xam ne dañuy samp benn xalaat rek ni ku ko gëmul rek dafa bañ réew mi dafa bañ nit ñi waaye am na ci diine ku bañ lii rek da nga nekk ci diine terrorisme la terrorisme léegi bu ko defee loolu ci lañ ko dàqee ci fray mi la hmm. mu delluwaat Uyayniya jóge fa dem ci Daraya euh, bu 1748 nag ci la taseeg Mouhamadou ibn Saoud bi nga xam ni ñoom ñaar bi ñu tasee. Hmm. kooku bëgguñoo soppali affaire bi muy muy loo xam ne histoire la waaye bi ñu tasee ñoom. Hmm. dañoo d' ci ni wàllu diine gi kilifteefu diine gi Mouhamadou Abdoul Wahab moo koy yore. Hmm. waaye wàllu politique bi. Ah, Mouhamadou ibn Saoud moo koy yore su ko defee. combine bële waaw Mouhamad Mouhamadou ibn Saoud. soxla na benn borom xam boo xam ni daf koy daganalal. Eh, eh, yi muy def te yoon mu wut mu ñu wut aaya lem ko ba mu mën a dëppoog loolu waaye. Muhammad ibn Abdul Wahab soxla na moom itam jaasi joo xam ni mooy ir fataawaam yooyu ba nga xam ni su ko defee kenn du ci eh, eh, eh, dañu koy maanaam dañu koy daganal bismil islam. Mm-hmm. loolu tax na ci ci gàttal daal moo di ni tuur nañ deret yu baree bare bare bare bari. ci diggante boo xam ni xoolal mille diggante mille sept cent quatre vingt onze. Mm-hmm. maanaam bi nga xamee ni benn at la ci toog moom Muhammad ibn Abdul Wahab génn àddina ak mille huit cent six. Mm-hmm. gis nga foofu. Eh, jël na fa Makka jël na fa Jidda jël na fa Iraq eh, foofa ci deru nit ñi foofu ci alali nit ñi foofu ci seen bakkan irakiens yi toog nañ quatre ans mënuñoo dem kii bi ndax sécurité amul waa Cham toog nañ ñetti at demuñu Makka waa Misra toog nañ ñaari at yoo xam ne demuñu Makka loolu eh, ñoo Cherif Ghalib nag seen xeex yi kooku ñu jàng histoire yëpp xam nañ ko yaakaar naa historiens yi ñu déglu mm-hmm. daa ñu mën a kii foofu mm-hmm. ñoom nag comme que dañoo amoon ku di yiiral seen fatawaa yi ñuy def ci lislaam hmm. bismi lislaam eh, yore jaas nga xam ne soo ko weddee ñu la dangaa dangaa weddi hmm. léegi bi ñu ko jógee nag ñu remplace ko benn terrorisme verbal boo xam ni soo waxee ñoom fi mu nekk rek rek li ñuy li ñuy kee nit ñi mooy yow daal mushrik nga shirk hada shirkun dag hmm. maam bokkaale nga ak yàlla hada kufrun ñu ni léegi wedd nga yàlla hada muruqun min ad diini c'est-à-dire génn nga ci diini xaalafal jamaa lii salafiya daaw ko wax dafa am ay verbe yu yomb waaw yoo xam ne xam loolu ci commune waaw c'est c'est nañ ko ci commune su ko defee nag ñu daal di jël hmm. euh, xam nga dañu ne ñoom xeexu bi da xeex ak bidaa mooy seen euh, mooy seen waaw foo foo bëggoon naa nga ñëw fii am na sax ku téléphoné démb ne di laaj bidaa ak euh, dafa mel da ngay encouragé bidaa kon xeex ak bidaa boobu bëgg naa nga taxaw ci hmm. waaw léegi ñoom nag dañuy xeex ak bidaa mais yenn saa yi dañuy indi bidaa yu ah. waaw parce que léegi xam nga salafiya la salafiya baatu nit ñii jamaa bi salafiya la baat boobu bi daal. dëgg la ndax amutoon ci jamono déedéet bu yàggul la ñëw bi bi Mouhamed Jamal Abd Jamaluddin Afghani ñëwee ak Mouhamed Abdou ñoo fi indi salafiya. ñu ko jëlee ci Ibnu Taymiya ñu jëlee ko ci waaw Ibnu Taymiya Ibnu Taymiya daf daan wax sax siiti mm. ni euh, as-salafu saalih kooku boo demee ci kitaabu sunna yëpp moo xam euh, euh, suufiya la wala ñeneen ñi ci des ñëpp dañuy wax ñoom asalafu saalix mais loolu tekkiwul ni woon asalafiya mazhab la woon mag ñu baax ñi fi nekkoon mag ñu baax ñi fi nekkoon hmm. parce que foofu il faut ñu seet leen mag ñu baax ñi mooy ñan hmm. bi yonent bi génnee ñetti xarnu yi mu waxoon ni ñoo gën ci gannaawam hmm. ña fa nekkoon ñëpp ñoo ñetti ñu baax ñi lañu xoolal saxaaba yi bi ñu wootee ba xeex ci jaas yi kan moo doon salaf saalix ak kan moo doon salaf taalix mënuñu ko wax ñun. Hmm. mu taabiroon yi bi ñu wuute. Hmm. ba xeex sax léegi kan moo ci salaf saalex wala salaf taalex. Hmm. foofu ba baatu salafee ci biir boppam dafa leerul mais tuddoo ko nag bidaa la. waaw léegi tuddee ko yoon daal bi la. bidaa la léegi nag euh, euh, ñoom wahabiya googu dafa am lu ko lee xam naa temps bi mi ngi dem duma ko mën a kii mais bi ci gën a xam nga bi ci gën a ràññ ko mooy ban. mooy ku wuuteeg ñoom seen xalaat ñu def la yëf. beneen bi ci des moo di ni su ñuy jëfandikoo aaya alxuraan dañuy jël aaya alxuraan boo xam ne ci yéefar la wàccoon. ñu appliqué ko ci kaw ay jullit. loolu moo indi sax ñu dem ba di taqsim tawxid. ila ila ila tawxid uluhiya wa tawxid rububiya wa tawxid asma wa sifaat. pour mën a wax ni kii gëm na yàlla waaye du jullit. waaw kooku xam naa bu ko waxtu bu matee daañu ci dellu si waat. mooy taqsim boo xam ne tegul fenn. soo leen nee bidaa la. ñu ni du bidaa. soo leen waxee ni ibnu taymiya ko sos xam nga kenn koo xam dafa wax ni lu yonent bi deful lu yonent bi deful woon wala waxu ko woon du ko def léegi ñoom ñëpp d'accord nañ ci ni taqsim boobu amul ci alxuraan sunna yonent bi waxu ko saxaaba yi waxuñu ko woon waaye boo ñëwee ba ci taabiin yi am na benn waaye bu ñuy wax uh, ibnu manda ak ibnu batta kenn ku nekk junjoon na jëm ci loolu loolu ba tey muy bidaa rek du wàññi ci xiima kii bidaa léegi nag baat boobu di bidaa uh, moom ñoom dañ koy wax yenn saa yi waaye du leen leer xëy na du ma mën a développer li may bëgg a wax lépp li ma bind lépp mais xadis bi daal ci lu ñuy sukkandiku inna xayra alxadisi kitabullah wa xayra alhadyi hadyu muhammadin wa charra al umuuri muxdasatuha wa kulla bidaatin dalala moom la ñuy ubbee seen discours yi toujours waaw boobu daal moom mooy seen baraatul istihlal ma léegi man si li awma problème mu bidaa mooy lépp lu yonent bi deful woon bi mu fi nekkee wala loolu mooy seen gis-gis ñoom ñu gisee noonu man man naa d'accord ak ñoom mu nekk c'est-à-dire benn raisonnement boo xam dañ koy topp wala ñu gëm comme ñun li nga xam ne moom lañ gëm te borom xam-xam yi moom lañ gëm même ñi nga xam du ay mutasawif dañ ne bidaa dafa séddale ko ay xaaj cest à biddaa bu farata dafa am ak biddaa bu ñu sopp ak bidaa bu ñu sib ak bidaa bu xaraam même ibnu taymiya soo demee ci euh, fatawa ibnu taymiya ci juz bu njëkk bi su fekkee ni mool bi ñu moole la soo demee ci jusu bu njëkk bi rek soriwul fenn. Mhm. mooy ni soo demee 176 xam nga loo fay fekk. Mhm. moo di ni isa al bidaatu isa lam takun waajibatan aw mustahabatan fa hiya mazmumatun bi ittifaqil muslimin. Mhm. ibnu taymiya ci boppam mi ñuy mi ñuy askanu moom gëm na ni bidaa am na ci benn boo xam ne farata la. am na ci yoo xam ne farata am na ci yoo xam ne ko sopp su ko nekkul nag day nekk bidaa boo xam ne bu ñu bu jullit yëpp ŋàññi la maanaam bidaa mooy lu bees li ñuy beesal nag lépp loo xam ne fokk mu matal jaamu yàlla bi te te noonu ko Ibnu Taymiya waxee hmm. moom saxaaba yi bi ñu fi nekkee moom lañ ko gisee woon hmm. parce que saxaaba yi bi ñuy dajale alxuraan euh, loolu yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko woon hmm. waaye euh, gannaaw saxaaba yi la ñëw gis ni alxuraan ji de d' accord ci woon sax. waaw d' accord ci woon parce que Aboubacar d' accord Aboubacar d' accord woon. parce que yow comme que yow waaw maa maa ngi ñëw pour hmm. préciser. bi ñuy bugg a dajale alquran ca xarb Yamaama ba nga xamee ne dafa bëri ay kaang yu ci génn àddina ci la Aboubacar ne dafay dajale alquran. Hmm. bi mu ko waxee Omar hmm. àndu ci woon. ñeneen ñi ànduñ ci woon ñu toog lu yàgg ba mu yàgg Omar ne ko toog naa ba mu yàgg yàlla firi sama dënn ñëw naa ànd ceeg yow kon yi daan bees du ne dafa daan bees rek ñu ñëw daal di ne diw baax na mel na nii waaye dañ ci daan ñoom ñëpp xalaat su ko defee muy am ñu ciy ànd ak ñu ci ñàkk ànd waaw su ko defee ñu daal di indi nag ñu indi daal di xadis man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd hmm. fekk xadis bi hmm. moom arrangé wu leen parce que ma fuumul mu xaalafa maanaam képp koo xam ne sos nga dara ci siñ diine ji ci bokkul waaw bu ci bokk boo ci sosee lu ci bokkul loola dañ la koy delloo waaw loolu li nga ci dégg mooy ne boo ci sosee lu ci bokk nañuy def daf cay bokk dañ koy jël daf cay bokk bien xadis bi hmm. eh, xoolal man sanna sunnatan xasanatan hmm. aw man sanna fi l islaami sunnatan xasanatan seen benn bu ci nekk ñëwal ci muslim hmm. léegi xamul lu ñu wax bu ñu koy firi léegi dañuy jël maanaam képp ku indi lu rafet ci diine ji diine ji. waaw eh, loolu yool ba dalay ñeel. waaw boo indee lu bon itam loola bàkkaar ba dalay ñeel. waaw eh, yaa ngi ña ko defoon te du wàññi seen bàkkaar. dafa yem sunna la wax waxul leneen wax. <laughs> léegi nag. Mm-hmm. yegg nañ ci. Mm-hmm. Eh, baatu man sànn fii. Mm-hmm. yegg nañ ci ba ñoom mënatuñ ko dégg xamul nga ñuy wax. man sànn ñu ne man axyaa ku dundal na. su ko defee indi genn wàllu xadis bi parce que ci arab xam nga soo waxee ni man ahya soo du waxee ni man sanna nga ni man ahya ku dundal na mu fil islaami ci islam sunnatan sunna xasanat bu rafet fa laha fa lahu ajruha wa ajru man amila biha léegi soo ñëwee ci beneen partie bi ci des man sanna sunnatan sayyi'atan doo mën wax foofu ni man ahya sunnatan sayyi'atan boo ko da ngay wax kalimat kufru parce que da ngay waxal yonente bi ni am amoon na sunna sayyi'a léegi saaba yi fi nekkoon ñoom li ñu déggoon moo di ni bidaa comme loolu ibnu taymiya wax yeneen borom xam-xam yi wax ko moo di ni bidaa dafa am bu baax ak bu bon léegi benn waay mooy taxaw fii bis bu na nga dégg ko mm-hmm. ni sunna su rafet amul mm-hmm. ah, bidaa bu rafet amul bis mm-hmm. bu nañu ko ci rajo yi ñu dégg ko bidaa bu rafet amul ibnu taymiya waxuma sax nee na bidaa ñoom seen sëriñ waxuma sax nee na am na bidaa bu rafet mais nee dafa am bidaa boo xam ne waajib la léegi ñun bu boobaa suñu weddee loolu ñun weddeetuñu léegi seen sëriñ lañu weddi waaye daañu leen laaj leen ndax Omar al-khattab mi nga xamni mo moo doon dajale alxuraan bu dellu si woon ñu jox ko kamil yi ñu jàng ndax dana ko mëna jàng. parce que kaamil yi dafa am ay tomb xattu osmaani te léegi euh, euh, amul woon non xattu osmaani bi mu amee ba pare xattu osmaani tomb amul woon après ba tey amu ci woon ma nga ci misra kaamil boobu gis nañ amu ci woon mais non seulement tomb amu ci woon ñi ko tomboon bu ñu dellu si ñu maas mun ñu ko jàng alxuraan amul woon tomb alxuraan amul woon maas hmm. léegi loolu ndax ñoom dañ koy jël comme bidaa bu rafet wala biddaa bu war wala dañ koy jël comme bidaa bu boo xam ni dafa bon dañ ko war a delloo parce que mënuñu ni ni di daa lu jógewul si yonante bi dama koy delloo waaye di jël kaamil yi di ci jàng naan kii eh, zalika danga maam di maas ko ci kaw te foofu loolu dañ la ko indil muy bidaa boo xam ne yonante bi dafa ko woon ñun ñu sukkandiku ñu bidaa kon dafa am bu rafet danga maam ak boo xam ni eh, dafa ñaaw mm. eh, xoolal fi may fi may tëjee parce que affaire bi dafa dafa dafa xaw a bari waaw moo di ni Omar Xataab ñëpp d'accord nañ ci ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci guddi lu ëpp fukki rakk ñett mais benn bis Omar ibn Khattab gis ñu ñi kenn ku nekk di julli ci ci jàkka ji mu ni leen euh, Ramadan mu ni leen nanu boole woo ñu def lu ñu tudde tarawih mooy ñu julli ñaar fukki rakkaa ci jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jël ilmaan mu jiitañu bi ñu ko defee ba pare Omar lu mu ci def mooy ni'matul bidaatu hazihi mooy ni ab bidaa bu baax a ngi ni saxaaba yëpp nga foon kenn kontoru ko am naa fi dégg naa fi nag benn borom xam-xam mm-hmm. euh, ku ñuy wax borom xam-xam la mm-hmm. muy wax ci rajo yi nii يونان عمر دفني نعمة البدعة هذه واي لولو البدعة لكن كون مو مو غن خاوم البدعة بدعة جرجف شيخ تيجان غاي خمنا ني كوب تيري وقتان ak mom ci ay minute du yombu su ko defé nak dañuy daal dañ doon ubbeek yow ci ñaari laaj yu ah. Mouhamad Abdul Wahab mooy seen sëriñ wóor leeral nga ñu seen tariqa mi ngi tudd ya ñoom ñoo ko ñemewut askanoo kon ñun ñu ñemee askanoo suñuy tariqa won nga ñu lan mooy biddaa won nga ne ñu bu rafet ba am na ca bu ñaaw ba am na ca ndax li ci diine bi nag lépp dañ koo beesalaat la dalé ci alquran ndax alquran wuñ ko nii e, e, lepp dañ ko beesalaat la ñuy beesal nak mun bon lu bon mom lu bon la tuddu ak fu mun di joggé lu baax lu baax la tuddu fu di joggé kon yaakaar naa ne ci tom bi nga xamné ne ci top légui inshallah ci continue euh, légui ci ñaareli bi muy محمد أحمد لو téeréem bi تشخيص تقديس الأشخاص yàllaal gi ñuy yàllaal ay nit taalibe yi dañuy yàllaal seeni sëriñ maanaam soo ko tënkee mooy turu téere ba su ko defee nag yow Cheikh Tidiane Gaye ci tontu bi nga ko tontu may laaj nan la gisee moom nitu sufiyanke niti tariqa ci bindam ci ci ci ci gàttal xam nga téere bi junniy page la yu màggee fukk ak juróom am xoolal amul kenn ku am xam-xam mën a jàng téere bi hmm. ba gis ci ni wax na dara ci tasawuf loo xam ne loola lu baax la hmm. amul dara loo xam ne lu baax ci tasawuf la hmm. amul ci benn mu tasawuf boo xam ne nee na kii ku baax la c'est-à-dire ñi nga xam yëpp tudd na leen c'est-à-dire boo seetee téere bi ñi mu tudd ci ay mu tasawufun nekk nañu ñaari téeméer ak ñett yaa ngi dégg waaye comme li ma waxoon doo mën a wax lépp mais danaa leen ci waxal li nga xam ne moom lay wax mutasawif amul kenn ku ci génn pour moom amul amul amul c'est-à-dire exception ci kii hmm. moo di ni mutasawifuun yi hmm. fi ñuy jaar xamuñu ko li ñuy def xamuñu ko hmm. c'est-à-dire ak njub nekku ci maanaam sëriñ si jubuñ baaxuñu xamuñu ñoo gën a ñoo gën a réer ñoo gën a réer gën a sànku gën a gë gë gën a jàdd yoon war na sax ci fu ñu nekk buur ba fa nekk. Mm-hmm. mu tere leen ñu dem ci jàkk ji. jàkk yi kilifa yi paase ak yi teew ak nee na nee na mutasayufuun yi. Mm-hmm. ñu ñi fi nekk ñi fi jóge ñoo yem. Mm-hmm. kenn mun la setal ñu jëkk ña takkal ñu mujj yi. loolu loolu wax na ko ci biir teere bi. mu ni ku gëm yàlla aussi. loolu daf ko jëlee ci benn benn seen kilifa wahab yi yooyu. ku jëm ku gëm yàlla aussi waroo euh, toog ak benn mutasawif euh, euh, ngay def moom nen. nee na nekk mu tasawif loolu nee na ci ibnu Qudama la ko jëlee. nee na nekk mu tasawif xam nga lu muy tekki. Mm. moo di soo gisee weeru Ramadan. Mm. kenn waru cee woor kenn waru cee wori. Mm. loolu soo demee ci premier tome bi 332 da nga ko ci fekk. xam nga luy tax ma wax lii parce que yii dafa mënta ñàkk parce am na ñoo xam ne dañoo ànd ak moom man maa ngi waxtaan ak ñoom benn benn mais soo leen waxee ni leen waa wax ne lii ci téere bi dañ naan lii mënta am te matale ñëpp. Hmm. am na fenn fu muy waxee ni ñoom mutasawifun nii hmm. xoolal ñoom euh, dañoo génn sharia. Hmm. du ñu teew ajjuma. du ñu teew julli mbooloo. du ñu dem fu ñuy jànge xamuñu ci sharia dara. xamuñu nu ñuy jàppee. xamuñu nuyu julle xanaa dëkkul ci réew mi. dëgg nee na ci boo demee ci muzakkira parce que loolu il faut nga gis ko ci fii dafa am benn muzakkira taw dexee bu mu bind maa ngi ko yore fii. ak benn muqaabala bu mu def ci jaridatu saxwa. il faut nga boole yooyu yëpp moom mi ngi jàngee Euh, mi ngi dëkk Touba. mi ngi jànge ci Cheikh xol Sëriñ Habib Mbacke. Mm-hmm. mu baax ma ca Touba. Mm-hmm. dégg nga ak Serigne Mbacke Jaxate mm-hmm. ak Serigne seex si ñooñu ñoo ko jàngal ci ci ca Touba. ba fi jógee mu dem Ndar jàng na ci Zawiya Alaaji Malick. jàng na ci Sëriñ Ahmed Jaxate bu gën Ndar ñun xam nañ ko bu baax a baax. ñooñu ñoo ko jàngal ba pare te ñooñu ñëpp ay mutasawifun la mu ni mutasawifun yooyu xamuñu ci sharia dara xamuñu nu ñuy jàppe xamuñu nu ñuy jullee xoolal mu ni ñoom ci diine masdak la la ñu bokk. Eh, mu ni masdak nag kan mooy masdak waji mo koy leral ci téeréem bi de. so deme ci page 414. ci souf ga da nga fekk mune masdak moy rasu zanadiqa. ki gënoon mu wedd yàlla ci nit ñi. bi nga xamé ni ahalla nisaa wal amwal wa jaalaha nga xamni dafa daganal. góor ak jigéen manam dal lu nekk ni ne ko daganal daal sopp daganal. lu mu gis rek baxna waxna ci fi lo xamni bon bëgguma ko doon wax sax waye comme que nak waxtaan dafa jot dañuy wax lu leer modini baatub lu xaraam mu ni amul ci mu hmm. tasawuf xamul baatub lu xaraam ba tax na sax eh, eh, seen sœurs yi araamul ci seen seen seen seen seen frères yi hmm. seen yaay yi araamul ci seen doom yi maanaam yowut lañ daal waaw mais yow sax génn ci léegi loolu waaw léegi eh, yii mi ngi ci ci biir kii bi hmm. ci biir téere bi ah, effectivement ci jawaatul maani am na lu ci ñëw lu tudd daairatul fadl mais moom moo ko moo ko tuddee ak daaira al fadliya jële ko ci maay gari waaw maay gari daf koy waaw daf koy sukkandiku bu baax a baax. parce ci sëriñam yi la. Euh, ma may ma ma fàttali may gari du sëriñam may gari taalibe la boo xam ne moom itam dañ koo xiirtaloon euh, wax euh, kooku moom beneen xissa bu gudd gudd waaye moo jiitu xam nga moo jiitu day tax nit ki dootul des jihaad fi sabilillah maanaam Cheikh Omar Fouti jihaad non pas Cheikh Omar Omar ñeneen xoolal waaw fi la asril muasir gi ñi fi taal jihaad ñëpp ay mutasawifun lañ Cheikh Omar fii ci Sénégal ak Mali Cheikh Hamawulaay ca Mauritanie Cheikh Mouhamadou Sanoussi ca Libya Mouhamadul Mahdi ca Soudan ñoom ñoo fi taal jihaad bi xoolal wax naa ci biir téere bi fenn ni ku mas a xam historien yi ñu déglu maa ngi koy wax sous leur contrôle moo di ni mooy di ni est-ce que am na benn wahabi bu mas a taal benn bal contre benn colonialiste ci histoire wahabi amul ñoom ñoom ñëpp moom. waaw xam nañ ne jaamu. bon jaamu buur bañ nga ci su demee nag léegi ci moto sayuf yoo xam ne xamul lenn lu mu leen di waxal. Euh, ba ba ma doguma la foofu day xas seen maam. doguma la foofu maa ngi fàttali ne am na benn borom xam-xam bu mag bu ñu wax Abu Hasan an-Nadawi bi nekk ca euh, Pakistan. waaw mi ngi wax ne yaa ubbaadal qusuur rafan bi ubbaadil qubuur. Mhm. yéen ñiy tere nit ñi ñuy dem siyaare ji ay bàmmeel. Mhm. yéen yéen a ngi dëkk di jaamu ay pale. ndax ñooñu ñëpp nag ci ay pare la ñu dëkk mooy fi nga waxee rek ne mos ñoo jihaat man la ñoom moom bànneex ba am na ci parti boo xam ni bukki la non seulement sax ñu jihaat am na fenn fu ma defee benn laaj kooku ca fin ba la moo di ni est-ce que am na waxuma sax mu xeex mais est-ce que am na benn wahabi bu mas a bekk ci bokk ci benn parti opposant benn opposition ñu ci doon buur ba pare eh, leeral ko déedéet jaamu buur déedéet kooku kooku amul eh, su su demee nag bay wax ci mutasawwifuun yi nga xam ne amul lu mu lay wax da lay wax ni xoolal abu yazid tayfuur ibnu isa albassaami wa kaana jadduhu majusiyan c'est-à-dire daf leen di yëgalaat wane ne dañ koo doon ak bon bañ koo doon waaw majuusu maamu bastaami hmm. ak maamu xallaaj loolu lu mu joteeg xallaaj mi nga xam ne ak bastaami loolu loolu la mu leen joteeg mu ni maamam dafa nekkoon majuus te tuub bu tuubee kay na ko bàyyi. parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni. ñett yëf moom. ku ko def dégg maam da ngay xeex ak yàlla. bokk na ci di jam nit ki ci cosaanam. ah te loolu bari na ci bari na ci téere bi bon su demee ci imaamul Xasaali da ngay gis ni imaamul Xasaali. moom nee na naafiq la boo xam ni. xool kaana yalqa. kulla fariqin bil wajhi allazi yarda. c'est-à-dire ñenn ñu nekk daal. bu bu na nga xamee ne xam na ne lii bu leen bu taseeg ñoom bu ko waxee ñu ko kontaan loolu la ci la doon nekk nee na ku mën a jaxase la mu la fex kabir waaw bon loolu moom la wax ci mutasawifun yi ba pare nag e, beral nag ci biir kooku mm. euh, euh, euh, tijaan yi du ma du ma ko xëy na waxtu wi duñu ko mat mais Eh, tijaan yi nag mu beral leen ci maanaam cër bu rëy rëy rëy wax naa ci téere bi ni xam nga seex baatu tijaan yi maanaam ci dal leen ci dal leen wax leen parce que da gis ni waa ji buy wax xaqiqatan hmm. da gis ni si wax ci tijaan eh, xol bi day gën a tàng waaw loolu moom am na ci hmm. eh, baatu tijaan ak tijaan yi ñëw na ci téer bi cent vingt trois fois waaw mais loolu léegi Cheikh Omar Fouti cent cinquante une fois hmm. léegi sëñ Ibrahima Niass radiallahu anhu douze fois te amu ci benn yoon boo xam ne kenn ci ñooñu tudd na la bu baax du ma kenn du ma indil fa loolu itam moo moo am ci saoudia maanaam du loo xam ne daf ko sos waaw waaw ndax soo liiree yi ñu bind ci saoudia itam noonu lañ koy bindee am na sax xoolal fu mu ni waa ji woote na ci téere bi ni xoolal mm-hmm. loolu moom mu ne su ko bañ a tudd mm-hmm. jàng téeréem bi te nekk tijaan na nga gaaw nga génn ci tijaan raxas sa xol ci ci ci ci ci saabu sunna nga génn ci tijaan c'est-à-dire moom. moom moom sunna moom moo ko moom nga xam ne foofu c'est-à-dire nëbbutootul cest à yoo xam ne. bu dee hmm. eh, nga yaakaar ni eh, bandi Sandaga yooyu bu ñu waxante seen biir li ñuy wax ñoom sax duñ ko weesu duñ duñ yegg. maanaam indi na kalima yi gën a. doy waar jëmale ci nit yàlla yi gën a sell. et puis tuumaal Cheikh Tidiane nii dafa ni Tidiane yi na ngeen dem lu ngeen gis te bëgg ko rek jël leen hmm. waaye fu ngeen gisul mooy yàlla mooy yàlla yëpp daga naa leen ko Euh, kooku daañu ci ñëw ci kanam ci ci talbisaat yi euh, bu lu mu tudd daayiratul fadliya te daayiratul fadliya moom xadis la xadis la bu ko xam ne xadis nabawi loolu daal mën naa ko wax ci comme li ma waxoon nag suñu jàkkaarloo woon nag dana ko ni waxal lii tuddal lii firil ko nit ñi ñu dégg mm-hmm. waaw parce que loolu am na yéen yoo xam ne man du ko wax mm-hmm. dëgg la waaw kon léegi euh, Cheikh Tidiane indi nga ay point yoo xam ne dana ubbi xel ñu bëri ndax danañ xam ne ay mbind a ngi fii Euh, man nag jàppal naa ko ay ngante danaa ko waxee ca fin ba ngante itam ci làmmiñam la jóge waaye nag xëy na ñëpp duñ nangu ngante loola waaye loolu ca fin ba laa koy indi su ko defee ma ñëw yow ci beneen point mhm. mooy yow lan nga gis ne moo waral mu daanu ci travers boobu puisque quand même ku dëkk ci réew mi gis ni fi tariqa def ci lu baax gis ni fi tasaare ci diine gis juma yi fi taxawal gis ne taxawalewu ko alalu kenn lu mooy ay doomi réew mi ngay wax ba ñu gëm ñu génne tabax jumaa ja ànd ci ak yow gis li ñu fixé ci ay population ña nga ci biir àll ba ay nit a leen fa téye bu taxutoon ak nit ñooñu li ko noon ñooñu ñëpp bàbbeeku nañ ut si taax yi jàll géej gi dem li tubaab yi di ut tey muy la fixation des populations nitu yàlla yooyu def nañ ko toog nit ñi ci àll wa ca métit ba ñu mot mot kooku dundul loolu jàng ci yaru ci lan moo waral inzilaakam lan moo waral euh, li ngay tuddee yow xaysu yëpp mënu daa bon bon bala maa jëm mag mënu daa bala maa egg ci mag mënu daa mag mënu daa lii rek laa ko waxee hmm. waa ji li li li ko tax mu def loolu li ma jàpp. Mm-hmm. moo di ne tasawuf. Mm-hmm. il faut mu nekk maanaam ñaari yëf rek la mën a nekk tasawuf. Mm-hmm. benn mu nekk benn xam-xam boo xam ne des koy jàng. léegi su ko defee soo ko jàngul. te ña nga ko war a jàngee ci seen i borom. mooy foog do am lu la ci réer. te man jàpp naa ni tasawuf mu ne su ko jàng jaamaa al islamiya parce que kenn du mën a jële xam-xam ci loo xam ne la ñuy jàng lañ ko noonu. du ñu mën a du ñu mën a du mën a honnêteté bi day manqué. bon. Euh, beneen bi ci des mooy ni tasawuf bañ a nekk xam-xam mais mu nekk loo xam des koy def nekk su c'est-à-dire nekk comportement loolu itam bu boobaa boo duggul ci biir soo ci waxee foog nga juum kooku ñaar yooyu dama jàpp ni moom jàngu ko ci ni mu ko war a jànge euh, jëf jëfewu ko ni mu ko war a jëfe kon su ci waxee foog mu juum parce que am na ci yenn wax yoo xam ni vraiment euh, damay waxuma ñi ñi nga xam ne d'accord ñu ci li wax mais ñi nga xam ne d'accord nañ ci maanaam am ànd am nañ fi ñu ànd ak moom ñoom sax suñu liiree téere wala ñu liir ma li ma bind dañuy wax ni lii moom bii dafa ëpp moom d'accord mu ci. léegi nag waa ji dafa dafa dafa dafa tëral benn règle. règle bi moo baaxu mu ni lu muy tuddee fikru suufi c'est-à-dire pensée suufite mooy lan. moo di ni lépp lu mutasawif ku ni mutasawif nga. loo bind ak foo ko binde ak kañ nga ko binde ndax da nga koy def wala doo ko def. ñax ñëpp koy def wala ñenn ña koy def wala kenn du ko def loolu moom lay tuddee alfikr sufi euh, su ko defee bu boobaa daal ñëpp ñoo ko bokk maanaam tey Sidi da nga doon fekk ni hmm. euh, bu benn sénégalais sàccee hmm. léegi benn waay dëgg ci ni sénégalais yëpp ay sàcc lañu yaakaar naa ni fi mu nekk ni su benn waay waxoon ne alfikrul islami c'est-à-dire pensée islamique mooy lépp loo xam ne ak jullit wax na ko hmm.

wax na itam ne yar na ko ci seen style. Mhm. donc façon attaque boobu xam nañ ko ci attaque boobu nga xam ne moom la communiste yi di wax la destruction avant la construction da ngay ñëw daaneel ba dara dootu fi nekk nga door fee taxawal kon kon méthode boobu dafa laajoon ñu leeral ko su ko defee mooy nga gis ni kon du ñu nangu ñun mhm. amul amul ñeen ñu koy nangu c'est-à-dire ci tijaan yi du ñu nangu ni benn tijaan lu mu dem fenn wax ko wala mu bind ko sax ni lii lii la loolu tijaan yëpp ñoo koy def mm-hmm. ñun sénégalais yi duñ ko nangu en tant que ay sénégalais tijaan yi duñ ko nangu en tant ay tijaan murid yi duñ ko nangu en tant que ay murid xaajir yi duñ ko nangu ay tànk ko nangu ko en tant que jël ñëpp non non lu kenn def rek ñun ñëpp ko def donc kooku duñu ko nangu léegi su ko defee mu daal di yokk ci nag ni mm-hmm. moom du bind lu mu du bind ci téeréem bi loo xam ni fekkul ñu bind ko fenn hmm. waaye loolu yàggul dara mu daat koy bàyyi naan gis naa fekke naa euh, teewe naa waaye nag yooyu mu teewe du koy wax nag du wax fi mu ko teewee ak fenn danaan fekke naa rek loolu xam nga na euh, xam-xam amu ci. am parce ne dafa dafa ragal a wax. fu mu ko fekkee am na fu muy waxee ne bokk na ci yàllaal. nit ñi fii li leen nit ñi di yàllaal mooy ñemewuñu wax sax ne diw dee na. waaw bu seen sëriñ de dañuy wax ne aj na wala dañuy wax. am na bu nelaw na am na bu gën a garaaw boobu nee na nee na day dafa gis ay ay nit ñu dugg ci ay avion ak ay ay saxaar. Hmm. jëm ca seen bàmmeelu sëriñ ya di moom di ko jaamu ci. Hmm. te mënoon a dem màkk te demuñu màkk. Hmm. waaw te léegi lu mu ko xamee foofu parce que kooku daf ñuy tardeel mais nañu nañu dem ci kii bi bon. léegi su ko defee eh, loolu nag lu mu indi. lu mu indi mooy contradiction yi c'est-à-dire xam nga su fekkee ni da nga ne mutasawif hmm. maanaam su benn mutasawif bindee lu mu bind rek mutasawif yëpp ñoo ko bokk hmm. ba pare wëlbatiku daal di jëm daal ni waxu mutasawif bii moom lay naqdoo moom lay yàqe waxu mutasawif bee Mm-hmm. xam nga loolu dootu mën a nekk parce que ñoom ñaar kan moo ciy mutasawif mm-hmm. su fekkoon nag dafa am dafa ne ay mutasawif yu nga xam ne dañuy sukkandiku ci seen i wax mm-hmm. loolu kon ñu mën a wax ni tarjix la bi mu rajix c'est-à-dire li tax nga def ko xalmees na foo ko ñoom ñoo ñoo yem même même degré kon bindee wax yu wuute daatoo xam lay waxati loolu yi xam nga yenn saa yi day jël waxu ibnu xajar al asqalaani eh, eh, eh, dëgg dëgërale ko dëgërale ko waxam. Mm-hmm. yenn saa yi mu jël waxu Shawkaani dëgë dëgërale ko waxam. Mm-hmm. yenn daal koy tagg. Mm-hmm. daal jël waxu Qardaawi dëgërale ko waxam daal koy tagg. jox walu Alusi jox waxu Seex Xasan Banna jox Saïd Xawa waaye bis bu ñu demee ba wax ñooñu suñu demee ba wax loo xam ne mu tasawuf ni la àndam mu wëlbati ko attaqué leen waaw ndax ñooñu amoon nañu wàllu tasawuf waaw parce amoon nañu wàllu moo tax léegi waa nga xam ni xaqiqatan man damaa jàpp ni euh, xamul fu mu jëm euh, wala bu ko xameet mënu faa dem parce que tànk yi dafa mel ne daal kooku nga xam ne dañu ko ceene ba nga xam ni amul liberté pour dem euh, bon am na ci comme que tanaaxut yaa ngi ñëw damay yem ci ci ci ci ci foofu. waxtu naa ko di mel ni tibbaale nga ko ndax sama buggee ñu avancé te xam ne heure bi li ñu dese. Eh, eh, il faut il faut ma ci tanaxu di moom. waaw ko ah, mu leer nit ñi. nit waaw kon kon tënk tënk ko boobu. rapidement puisque. Ah, euh, bon bon bon xëy na du ma mën a ñëw ci akaasi bii fii. Hmm. Ah, euh, euh, parce que junj naa ko yooyu fu mu waxee noonu xam nga xam nga tey waa ji su waxee ni fu nii du ñu dem jàkka. lu ñu julli ci mbooloo te ñoom ñoo tabax jàkk yi mm-hmm. kooku daanaka jarul la jarul la leeralaat mm-hmm. su fekkee ni dafa wax ni ñoom lu xaram amul ci ñoom nga xam ne nit mën naa takk sëram mën naa takk yaayam kooku jàpp naa ni loolu jarul la jarul la bon mais tanaqudaat yi fokk ma tuddal la ci mm-hmm. tanaqud mooy contradiction yi nga xam ne waa ji da cee dugg euh, di wax yoo xam ni yenn saa yi da ngay laaj nit ku ànd ak xelam nu mu mën a waxee ci waaw nit ku ànd xelam kenn nit toog ci kii bi di bind bind xool ko ba pare wëlbatiku euh, di ko wax xam nga fi mu waxoon nga xam ne daf ko jële ci benn waay ni buur bi dafa war a tere nit ñi dafa war a buur bi wala ñu ko fi wuutu dañoo war a tere euh, suufiyanke yi pour ñu teew ci jàkk yi yaa ngi dégg dem tuuti wax ni ñoom du ñu dem jàkk du ñu teew julli mbooloo xam nga loolu fu fekkee parce que ku dul teew ku dul teew julli mbooloo kooku kenn kenn mun ko dàq jàkk comme ko dem jàkk léegi loolu nan lañ ko ci nan lañ ko ci contradiction c'est une contradiction dégg xoolal fii ci maarifatul xayb xëy na duñ ci mën a yegg moo di ni waa ji wax na ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamul xayb léegi aaya boobu na aalimul xayb fala yusiru ala xaybi ahadan ila man irtada min rasul kooku ñëwul ci téere bi daf ko daf ko daf ko jël complètement parce que arrangé wu ko mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamul xayb parce que dalil bi moy hadithul ifk manam bi ñu tuumalee Aïcha yonent bi su xamone ni su xamone ghaib dana xam aisha defuko defu naqati daia c'est-à-dire yonent bi gileemam dafa réer xamul fi gilem gi ne ba ben way ni ca seen yonent bi di len wax li ñek ci asman te gileemam gi réer mu ko xam léegi nak yàlla xamal ko fi gilem gi nek mu ne yonent bi su xamone ghaib kon dana xam ñaar yoyu yaa deg waye li ci jaxal moy la jitu touti rek mu dadi dem ni indi hadith bi nga xamni tabarakallah hadith bu wér la bu kenn werantewul mu ni yonent bi dafa yek ci jabal Uhud mok abou Aboubacar ak Omar ak usman Uhud yëngutu yonent bi keddako ne ko Uhud dalal fa fa fa fa laysa alayka illa nabiyun wa siddiqun wa shahidaani c'est-à-dire yow oxot da ngay dal xamal ni ki nekk sa kaw mooy ab yonent ak siddiq yonent bi mooy moom siddiq bi mooy abou bakr shahidaani mooy omar ak ousmane loolu bi ko yonent bi wax ñoom ñaar ñi nga ànd ak moom di dund loolu xëy bu la mu wane na ñi ëllëg nar nañoo dañoo nar a dee ci yoonu yàlla mais yonent bi dem na def na lu weesu loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni wax na ni ay nit ñoo xam ne al mubashirina wal mubashirat bil janna nit ku deewagul nga wax ko ni ko da ngay dee ci nangam te boo fa jógee da ngay dem àjjana yonente bi wax na loolu xoolal lii lii sii di foog mu wax ko moo di ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal xusayfa moo nii yonente bi julli nañu julli nañu suba lii mi ngi ci muslim ah soit ñu wax ñu ne xadis bi wérul wala ñu seet nuñ koy def noonu parce que ñoom am waaw Euh, mu ni julli nañu suba yonente bi yéeg ci minbar bi di ñu xutba ba tisbaar hmm. ñu julli tisbaar mu yéeg di xutba ba takkusaan hmm. léegi mu julli takkusaan di yéeg di xutba ba timis mu wàcc li weesu woon hmm. ak li ñëw lépp yonente bi wax nañ ko ki ëpp ci xam-xam ci nun nag mooy ki ci dàqoon mokkal kese waaw xam nga itam euh, am na yeneen yoo xam ni mu ngi ci Bukhari mu ngi ci Muslim vraiment loolu ci ci ci ci contradiction yi nga xam ni xolul fii bii bu reelu la Xazaali mu ni imaamul Xazaali daf doon nëbb ittihaad gi mu gëmoon c'est-à-dire mazhab ittihaad yi al mazhabul ittihaad yi maanaam yëg ni. jàpp ne lépp benn la lépp benn la daf ko doon nëbb. waaye loolu mu doon nëbb mi ngi mu tasaare ci biir téeréem yi xoolal mu wazaun fi kutubil Xazaali c'est-à-dire dañu ko cee tasaare. mansuurun fi dawaawinihi daal di indi ñaari téere daal di wax ni. rawdatul taalibin wa miskaatul anwaar yokk ci beneen nag ci beneen safa 503 daan ñu néew ci borom xam-xam yi xam ni ñi jànkat yi ñoo xam ni xasaali dafa xolal عقيدة وحدة الوجود في أكثر من مؤلف تقريرا واضحا جليا لا غبار عليه xam nga da ko doon nëbb ba pare ni dindi na ko fàng nga xamni ni dara nëbbutu ci c'est-à-dire lan la ci xasaali def mooy est-ce que daf ko doon nëbb wala nëbb ko woon c'est-à-dire euh, yooyu yëpp ay contradiction yi waaw léegi damay jàll ak yooyu ci beneen may ma bii may ma bii may ma bii parce que c'est important mhm. mooy ne soo demee ci premier tome bi deux cent soixante-dix-huit mhm. day wax ni mhm. kalimatu laa ilaha illa allah foo jaar muy bëgg a fukk sa nopp yi c'est-à-dire mu tasawif ñoo koy wax mais ci ci ci ci paas bi ci topp de. Hmm. c'est-à-dire mooy 279. mu ni mutasawifun yi dañuy wàññi qiimatu laa ilaha illa allah maanaam ñu laa ilaha illa allah ñàkk ko fonk googu moo tax ñu koy tuutal bay tudd allah allah da moom al ismul mufrad ndax fonk ko fe te ñoo fay la waxoon ni kat ñoom seen seen jàng gi ñu koy jàng moo tax foo jaar moo ko fukk sa nopp yi hmm. fii mu wëlbatiku ne dañu koo fonk ba di ko wàññi laa ilaha illa allah cest à waa ji su fekkee ne xam na li muy wax itam vraiment mm, àndulagoon sagoom waaw kon léegi ñu yëg si rapidement puisque ni nga ko waxee ni ngi ci bind itam bëri na ci contradiction yi suñ ci jëloon daf ñuy jëlal ay waxtu yaatu dañuy yëg si ci li ngay tuddee talbisaat ak tablilaat maanaam yi nga xam ne gis nga ne ay réeral la ak yi nga xam ne itam gis nga ne ay amalgame la comme ni ñu koy waxee. nga xam ne léeg-léeg eh, mu wax ci wax yoo xam ne yow gis nga ne jubluwuñ ci woon loola leneen lañ ci jubluwoon waaye moom mu am luñ ca bëgg a waxee ci wax jooju. waaw ñu ci passage boobu. boobu léegi pour rapidement moo di ni xool tawassul gi nii. Hmm. xam nga waxee bi li mu gën a euh, xeex. Hmm. bokk na ci tawassul mu ne nit ñi dañuy dem. am sëriñ. dañuy dem am sëriñ mais seulement dem ca moom di ko ñaan. waaw léegi. Eh, maanaam jébbalu daal. déedéet da ngay dem boo demee ci xabaru sëriñ bi. wala ci kii ñaan fa ñaan fa ni ko dégg maam ci barke diw. wala ci daraja diw. léegi mu ni yonent bi nag sallallahu alayhi wa Euh, malgré nga xam ne jàngaloon na euh, silmaxa silmaxa sos silmaxa si ñëwoon ci moom hmm. di ko wax ni ko dama bëgg nga ñaanal ma daal sama bët yi dafa muuru mu hmm. nga ñaanal ma mu ne ko soo muñee moo gën waaye soo bëggee tam ma ñaanal la mu ne ko ñaanal ma mu ne ko demal jàpp euh, ñaar rakka demal jàpp ba set ñëw julli ñaari rakka te daal di wax ni yàlla maa ngi lay ñaan ci Muhammad dafa am benn boo xam ne foofu dañ koy ci Muhammad waaw continuer waaw parce que baa bi xam nga bi Muhammadin Euh, en cas baa bi am na leneen lu mu dox lu ci dugg. Mm-hmm. lu dul maanaam lu dox digganteem ak. Mm-hmm. Euh, digganteem ak Muhammad c'est-à-dire moo xam ndax bi barakati la wala ndax bi jaahi la wala ndax bi daraj bi bi darajati la wala ba bi martabati la euh, kooku am na lu fi dox. léegi si naaw mar ñaan na ci barke ba léegi ñun duñu foofu duñu fi werante ak ñoom. Mm-hmm. lii moo fi dox wala wala laa moo fi dox mais nga ñaan ci kooku ni ko yàlla. dama bëgg ci yonent bi nga fajal ma. nga delloo sil ma sama bët yi sama aajo ji nga faj ko hmm. waaw waa ji bi mu ko defee ñu toog tuuti rek waa ji mel na mësula silmaxa mu ni foofu xam nga yonente bi dafa waxoon waa ji ni soo mu muñee moo gën waaye su nga muñ wala ma ñaanal la mu ni kon yonente bi daf ko ñaanal hmm. waa ji waa ji yonente bi daf koo ñaanal hmm. parce que tawassul fokk waa ji ngay def waa ji ngay bëgg ngay tawassul ci barkeem fokk mu ñaanal la fokk mu def dara loolu loolu xam fu mu jógee parce que amul benn xadis même bu daif buy wane ne yonent bi ñaanal na silmaxa soos mm-hmm. même bu daif amu ci silmaxa bi moom moo ñaan moo ñaan ci boppam ci barke bi yonent bi te silmaxa si bi muy ñaan boo ko tuddee tawassul bil amal du taxaw parce que xam nga lu ko def mm-hmm. mooy ne su may def tawassul ci sama amal fokk mu tudd amal ci dama naan yàlla may ma ci sama ñaari rakkaa yi ma julli gannaaw njàpp mu sell mi may ma ci fajal ma sama soxla hmm. waaye waa ji waxu loolu de bi mu jàppee ba pare dafa ni nga may ma ci Muhammad mi hmm. waa bo boo ñëwee ci ci ci ci Amar ibn Khattab hmm. parce que am na wahabiya lu ñu def loo xam ne man Sidi jaaxal na ma ba léegi mooy ni tawassul ñu ne dagan na ci kuy dund mais bu faatoo dootul dagan ndax waa ji su dee day am kattan bu mu jàkkaarloog yàlla di xeex ak moom di ko imposer dooleem ba foofu mu dagan waaye bu faatoo day ñàkk doole léegi dootul mën a xeex ak yàlla xoolal ci xadis bi nga xam ci la ci la Omar ibnul Xataab defee tawassul ci Abbas bay taxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ab Omar lu mu wax mooy ñun daal dañ daan def tawassul ci yonent bi ñoo ngi def tawassul ci Abbas mi nga xam ni xoolal ammi nabiyina waaw c'est très intéressant parce que baatu foofu ammi nabiyina yoon Omar ki mu def tawassul du Abbas al faqih du abbas xabrul umma hmm. du ab abbas beneen mais abbas la boo xam ne ammi nabiyina relation bi mu am ak yonent bi hmm. ci la barke ci la ci la ci la ci la ci la yonent bi ci la omar ñaanlu après foofoo tam amuñu benn xadis boo xam ne dafa wax ni yonent abbas def na dara hmm. moom daal dañoo ñaan ci barkeem rek mu daal di taw bon ñoom ñu ni li tax Omar bàyyi fa bàyyi fa. yemuñ yemuñ ci dañ koo kañ. waaw dañ koo kañ. waaw ko rusloo woo ñu. waaw léegi ma ma mu ni eh, ñoom ñu ni. li tax Omar bàyyi fa yonent bi. Mm-hmm. ñëw ci eh, Abbas moo di ne ku faatu kenn taw tawassul ci moom. Mm-hmm. boo ko dégg est-ce que déggu ci ñu dé doo ci dégg yow ni Omar dafa ñëwoon ci Abbas. pour wane ni leen mënees naa def tawasul ci kenn ku dul yonent bi kooku ci ci yaa ngi toll sans départ ci saa yi di nga toog di ko di ko xool rek su ko defee nga gis ni foofu lëndëmal na fi lëndëm yoo xam ni e, bon waxtu wi xëy na du ko du ko mat waaye am na benn ba affaire boo xam ne il faut ma ma leeraloon ko bala maa bàyyi fii mm-hmm. mooy Cheikh Mouhamadou ibn Abdoul Wahab mm-hmm. ah, rahimahullah ak li nga xam ni moom la doon tatarruf lépp mm-hmm. dafa tàqale ku dem ci bàmmeelu nit bàmmeelu ku baax di ñaan yàlla ak ku dem ci bàmmeelu nit di ñaan borom bàmmeel ba ñoom suñ doon xeex dañuy war a xeex ki dem ci bàmmeel bi naan euh, sëriñ bi tëdd fii may ma non non kooku loolu la ñu waroon xeex kooku ñun ñu dañ koy xeex parce que kooku mënu may mais kii dem di ñaan ndaxte place place bi place bu baax la bu ñu war a ñaane wala ma jaar ci kooku def tawassul dem ci sama borom loolu cheikh Mouhamadul Abdoul Wahab daf ko dagal ci fatawa Mouhamadul Nour Abdoul Wahab cheikh Mouhamadul Nour Wahab nga xam ni al jaamiatu Malik Saoud moko genné ci usboo buñ ko don organiser mais wahabi ni dañ ko sax bu ci suuf mais heureusement fek na. am nañu ko am te amna ben sew sew bu nek ci tawassul. sidi xam nga baatu tawassul tawassala ci arab xam nga lu muy tekki. mooy jaar na. al wasila moy jaaru kay c'est-à-dire moyen de soit moyen de communication wala moyen de transport. nooy mën a déggee ñëw ci ni yàlla maa ngi jaar ci nit kii jëm si ci yow pour nga ñaanal ma pour nga fajal ma sama soxla ñu ne kon yow nit ki nga jaam eh, kenn mënu la wax ni waa ji tawassala bi fulaan dafa jaar ci diw eh, xel yu ndaw yi boo leen laajoon ni leen waa ji dafa doon dem dafa doon dem Kaolack dem eh, jaari jaari jaari Louga dañ la naan yoon wi dëng na rek hmm. waaw parce que jaar moom boo nee jaar maanaam foofu tax la jóg. xam ndax baat bi ci wolof la bëgg wax. leer leer na léegi nag. Cheikh Mouhamadul Abdul Wahab daga na ko Cheikh. Jamal Din Afghani aussi wax na ni tawassul bokul ci masala xilaafiya ma masala aqida masail aqadiya yoo xam ne day tax nit ñi di mën a takfir kii wala ñuy takfir kenn masala xilaafiya la boobu boo xam ne basita mais waa ji daf ko attaqué wax ko loo xam dégg nga weñ wu ci daal sax mën ngaa mën ngaa man ngaa mën ngaa dee. bon kon dama bëgg waaw dama bëgg a ñëw ci beneen masala comme ni ma ko waxee rek page yi bëri na téere bi yaatu na li nga ci leeral bëri na yaakaar naa ne bis bu paree bis bu paree bañ mool ko il faut dire que nag amoo ay moyens te itam waxaat yéen nekkuñ sa gannaaw te moom téeréem bi mool bu rafet lañ ko mayee lañ ko def di ko mayee ma jaanan waaye yow sa bos amagul loolu waaye nag bis bu moyen amee ba mu génn ñi koy diir dañ ci xam yi su ko defee nag mu ñëw ak yow ci beneen point mooy li ngay tuddee taxriful kalimi an mawaadihi ne dañuy jël baat bi lam dañ ca namoon ñu daal di ko transvertir. waaw mais euh, bala maa yegg foofu si nga may ma ci ñaari minute waaw ma waxal la fi ilmul xayb bi. Hmm. parce que waa ji dafa wax ni. Hmm. mutasawifun yi dañuy woote ilmul xayb. Hmm. waaye te loolu ñuy wax du dëkk. c'est-à-dire euh, sunna xamul woote xaybu ak salafiya xamul woote xaybu. léegi salafiya nag buñ koy tudd ko ñoom ku ci jiitu ci ñoom du Ibnu Taymiya. Euh, Ibnul Qayyim moo ñuy waxal lii. waa ji nee na nee na lépp lu gaa yi wax ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci xayb bi mu tasawufoon yi ay neen la rek yu ñu dajale parce que tey xool ibnu euh, Abdou Aziz Dabbaax a ngi nii rahimahullah wa radiya anhu benn bis dafa toog ci kanamu taalibe mu jàgg mu mel ne ku dejjant mm-hmm. daal di wëlbatiku ni taalibe bi loo wax taalibe bi ni ko waxuma dara mu ne ko loo wax sa xol laa wax mm-hmm. waa ji nee na fekk mi ngi doon xalaat xalaat bu ñaaw mu tiit waa ji foofu lu ne la wax Abdou Aziz Dabakh ak ak moom Ibn Barak mi nga xam ne moo ko solo. benn bis dafa toog ci kanamu taalibe mu jàng mu mel ne ku dajjant. daal di wëlbatiku ni taalibe bi loo wax taalibe bi ni ko waxuma dara mu ne ko loo wax sa xol laa wax. waa ji nee na fekk mi ngi doon xalaat xalaat bu ñaaw mu tiit waa ji foofu lu ne la wax Abdou Aziz Dabakh ak ak moom Ibn Barak mi nga xam ne moo ko solo. Cheikh Ali Harazmi bi mu ne. Cheikh Tidiane da daan xam ahwaal. axwaalu qulubi murid yi c'est-à-dire seen seen feebari xol daf ko daan xam pour mën ko saafara parce que loolu moo tax ñu wut sëriñ quand même euh, mu ni loolu lépp baatil la hmm. kullu hada baatil hmm. léegi nag ma bëgg a ñëw rek pour wan leen ni leen gars yi ni ñu ñàkk a maandoo hmm. vraiment dafa jéggi dayo ci madaariju saalikiin xam nga madaariju saalikin gis nga ko mm-hmm. waaye gars yi dañu ko talxiis madaariju saalikin ñetti juzu la mm-hmm. yoo xam ne boo ko seetee daanaka mat na euh, junni page ak euh, ñetti téeméer mm-hmm. euh, dañ ko dem talxiis ko c'est-à-dire dañ ko résumé ci fenn foo xam ni matul 90 pages c'est-à-dire yi nga xam ni moom la Ibnul Qayyim wax te d'accord ceeg mu tax sa yëfuun yi yooyu ñu dindi ko daal mm-hmm. di jël yi nga xam ne mooy seen xalaatu bopp kese pour imposer ko nit ñi di ko maye foo jaar ñu may la ma daal di saalikin boo jógoon fi dem sa kër sa bala kaay yegg gars yi benn na may léegi nag foofu rek laa bëgg a wax euh, tuuti mm-hmm. lii Ibnu Qayyim wax nu mu tudd mm-hmm. Ibnu mu ni danoo toog ci sëriñ bi dañoo toog ci sëriñ bi muy Ibnu Taymiya ci 696 Ibnu Taymiya ni ñu tataar yi tataar yi nga xam mm-hmm. ñi ngi ñëw di xeex si waa Saam waaye bu ñu ñëwee dañuy gañe jullit yi la ñuy gañe mm-hmm. eh, jullit yi la ñuy gañe waaye kenn du rey nit ñi kenn du fi jël ay nit mm-hmm. ñoom bu ñu ñëwee alal ji rek moo leen tax a wax moo moo leen tax a jóg eh, loolu boobu ñëwaguñu loolu xay bu la wala bu xay bu beneen bi mu ni ci 702 mu ni tataar yi ñu ngi ñëw mais bu ñu ñëwee te bi yoon moom dañu leen di gañe jullit yi ñooy gañe daal di waat ni wallahi bu ñëwee jullit da leen di gañe benn waaye ni ko waxal insha allah mu ni mu bañ a wax insha allah mais bi gaa yi bare bi gaa yi bi gaa yi insisté ci wax na insha allah mu ni insha allahu taxqiqan laa taaliqan c'est-à-dire damaa wax insha allah pour dëggal li ma wax ne dana am waaye ajuma ko ci Ibnu Taymiya moo def loolu bon bi gaa yi dee wax ni li sëriñ bi def li sëriñ bi wax yéeme na Ibnul Qayyim mu ni فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا كتب الله تعالى في, في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون هذه الكرة من يلا مو بنت اللوح المحفوظ نبيا مم تتاري لن يجري تي واخون نفلي ني متصوي فري يغ نان سخ دي واخني دانيو جانغ سي لوح المحفوظ تي ابن القيم ني جانغ نان سي المحفوظ واخكو ابن القيم ابن تيميه بندكو واي يمل سي لول موني فمو كاي جيهال موي خولال ابن تيميه صلونما بأمور باطنية قال أخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي ما خل ما لو خمني كمان ركلا جاي يخمني يمبر بير مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني لو دمك وخلات سما خل موخمكو وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل وخم يو خمني دي نيو تي تي تي تي كنم تيست سورغول سو كي وقد رايت بعدها لان لي وانا انتظر بقيتها بقيتها ما خار لي دس وما شاهده كبار اصحابه من ذلك اضعاف اضعاف ما شا... آه، شاهده والله اعلم مون ليغي لي طالب يو ماغي نك جيس مو فول فوف ليغا خامني مان جيسنا لي لي لي باطل ولا دغلا يو يد تيو غولون بيم كوي واخ بو يف سيغو تو تي تي لي لير موزي ني وادي جانغ نكو بوركو دي نام دوبين لولو واخ ني نيو تام ديغ مام دانيو خام كون نك افانسي نك مان سي تحريف الكلمه تحريف الكلمه عن مواضعي كوكو سوسيتي حقيقة تيربي تفنى التحريف وخي شعراني بتاي تي تي تي تي تي الجواهر والدرر شعراني تي مغو تصوف نيب كفون bokk na ci yu mu taxrif na ko ay waxam taxrif na waxu Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu tax taxrif na waxu Cheikh Abdoul Khadir Jilani Abdoul Aziz Dabakh moom lañ tuddee Serigne Abdou. waaw waxu Abdoul Khadir Jilani taxrif na ci yu bëree bëri bëri. waaye man fii dama insister. ci yi mu def ci Jawahirul Maani. parce que si Euh, bëgguñu ñu def affaire bi kii. mais am na benn affaire man bëggoon naa benn bis. Hmm. bu ñu jàkkaarloo c'est-à-dire waa ji li mu bind. am benn borom xam-xam bu toog di ko liir. Hmm. am beneen waay ñoo xam ne ñu ngi toog yore jawahirul maani hmm. am kenn koo xam ne mi ngi yore ñoo xam ne ñu ngi yore li ma bind. man ñu may ma may xool waa parce que si am na yéen ñoo xam ne su ko nit waxee. su ko nit waxee. te ni gëm na yàlla. loolu su demee ba génn normalement waratu la mën a nekk ci kaw suuf waaye am na taxarifaat yu mu def yoo xam ne man bëgg naa benn bis ñu toog ma koy xool gars yi di ko jàng ndax lii nit war na ko mën a def wala déet bon. maanaam waxal nit lu mu waxul ñu jàng ko ñëpp xam ne waxu ko. waaw te te day day wax ni Cheikh Tidiane ko wax ci Jawahirul Maani jox la page ni la page tel dem ci. soo demee fekk li mu wax li contraire bi li Cheikh Tidiane li doon wax la. wala wala mu fekk benn benn ibaara bu ndaw. mu jaxase ko am na ci ñett yoo xam ne moom du ma ko mën a bañ a tudd même buñ ci même bu ma ko tuddee ñu yem ci hmm. euh, baax na mais bu njëkk bi mooy hmm. dafa am lu muy tuddee daairatul ak euh, daairal fadliya hmm. euh, effectivement ci jawahirul maani am na lu ci ñëw lu tudd daayiratul fadl mais moom moo ko moo ko tuddee ak daairatul fadliya jële ko ci maay gari ah, waaw maay gari dafa ko waxoon ne boo demee hmm. fa quulaa lahu qawlan hmm. layyinan la ko la ko yàlla waxoon hmm. te moo di Moussa ma yàlla yebaloon ci eh, Firawna mais moom maanaam ñoom ñii duñu ay yonant waaye ñi nga xam ne ñooy nit yàlla yi fi nekk ñu di leen xas mais ñoom itam wax dëgg yàlla